tabaarakallaahu ah xam naa loolu ay kàddu yu gàtt rek lay doon ah, di ko santaat bu baax ndax it wax naa ko léegi ñu fi jóge kenn ku nekk yàlla rek ay sa seede boo tëddee ci bàmmeel it la nga waxoon ngay waxaat nee naa ko cercle VIP ak Alima Ndione surtout moom cofeelam sëñ kër gëm nañ ko ma ne leen lu tax mooy sept ans bu ko bëggoon mu am neneen lu mel mel na noonu bu bëggoon mu gën a rëy it xam na foo xam ne bu ko fa jaaree fa lay gën a rëy parce que nit ñi léegi mun nañoo xool ne daare nanga ma gën a kawe moo gën a nañ ko fa yóbbu waaye moom la sëriñ Babacar ne du soppeeku mukk suñ Babacar du soppeeku lu mu xas ba jàpp ndax wax naa ne guro dañ ko laajee bu weex wala bu xonq mu ne bu weex boo ko yooyu bu desee ñu ne day xonq mu ne sama yoon nekku ci luy soppeeku sëñ Babacar musta changé bonnet carré sol na ay verre verre yi damm ñu andil ko verre yu bees mu ne ana kóllëre jël firndi fer te mooy xalif général des Tidiane takk ko sëñ Babacar radiyallahu taala an xëy na ñoo ko lu tax yooyu guro tey mu ne bitig bee moo ma doon jaay te du ma dugg tey bitig bii suba bitig bee ginnaaw suba bitig bee bitig bii ma xas ba abonné jeex na ba yowmal xiyaam du ma bu ko amul tamit damay toog kon kóllëre googu mu amoon tey gis nañ ko ci loo diite ndax lu nit lu mu jiite rek loola mu bëgg war na cee mun a feeñ kon nag fa tabaarakallaahu xaj na du ñu guddalati ndax it xam nañ ne émission yi ñoo ngi lay xaar ñu nga la ci gën a ñaanal yàlla rek yàlla gën ci def ndam liñ ko waxee rek moom tabaarakallaahu ñun dana nekk ak suñuy moroomi oustaz wala ñu nekk ci jataay wala ñu nekk ci taxi borom taxi bi teg ko fa tabaarakallaahu tekk sax maa ngi tiim sama alquran wala di jàng mu commencé di wax rek ma ma envoyé ko moom mi euh, message ci sens ndeysaan mu ne maa ngi nuyu oustaz Pape Ndiaye gaa yi dama oustaz da ngay déglu di ma ne moo dul baa ngi nii waaw moom moom la may déglu it moom mii moom moo tax taxit wax dëgg yàlla parce que nit ku nekk nag war war kaa ka nga am la mu am moom nga am ah fa tabaarakallaahu te yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na benn pepp ceeb boo dugal ci biiru ko xiif moo gën a yàlla tabaxal ko téeméeri téeméeri jàkk ak junniy jumaa ah, baal ma soxna soxna Abiba ñoom ñëpp ay soxna lañ Abiba benn bii way barki dem mooy première édition mu ñëw fi indi fi ay reer yu bëri macha allah moo ku ñuy Amina ma ne ko nag jaaxaluñu parce que ki ko ubbi mooy soxna Alima Ndione daara ji bi mu ubbeel moom moo ko fi njëkk def daara ji amul at mu njëkk ko fee def kon jig gim ñu jig moo tax fa tabaarakallaahu tey ñii ñëw ñëpp ci la ñuy jaar ba ñëw waaw moo ko ko ne ma ne ko nag ñu jara def attention lañ am na koo xam ne bañ na yónente bi boo ko tuddee mu saaga ko saaga yónente bi saaga la yow mi tudd yónente bi yónente bi ko demal nga nuyul ma ko waa ji ko loo def ci baax mu ne ko am doom bu jigéen takk ko sëy ak moom xam nga loolu baaxul mu ne ko xalaatal leneen lu baax loo def mu ne ko xanaa benn jigéen bu toog fee di ak ay doomam yore di jooy ma dajale ceeb bi nekk fii ak li fi nekk ma may leen ko yonent bi sallallahu alayhi ne ko loolu mu def joxe ñam googu fekk ñetti fan bu ci deewee dem aljana julliwut wooru joxewul azaka di saaga yonent bi ñetti fan bu ci deewee lundi la ko def mardi mercredi ñu ñu tàgge barkum kon fa tabaarakallaahu joxe ñam rawatina nga jox ko ñooñ alquran ñoo xamante ne fa tabaarakallaahu seen xel yëpp guddeeg bëccëg 4 heures di matin ba 21 heures toog di jàng alquran la comme ni ñu ko waxee ñii seen waajur yi nekk ñu fi ñii seen waajur ay si mbaxam mënuñu ñii seen waajur ñu ngi dund mais amuñu doolee tée ko tabaarakallaahu ñu indi ko ah nga ñëw di ci jàpp-jàpp goo xam ne fu ma dem wax ko boo xasee ba ñëw fii moom ah ñun sama xel day daal man si laay soog di commencé dundaat man si laay soog ah, jaaraama seydil si fii woo Babacar si jël na dama la si jël na dama la e waay ku fi gën bëgg sëñ Babacar loxo yi ca e waay ana ñi bëgg sëñ Babacar loxo yi ca kaw alima xalifa Babacar si jël na ndam la soxna alima xalifa Babacar si jël na ndam alima mu sëñ Babacar si xalifa jël na ndam la Seexuna ne la bëgg su ko waxee yow la bëgg su ko waxul yow coow li coow li yawa Halima Njoon Halima Njoon seexu naa ne yow ko waxee yow la bëgg ko waxul Halima coow li coow li yawa seri seexu naa seri seexu naa seri seexu naa Halima Halima Halima Njoon a ngi seri seexu su ko waxee yow la bëgg su ko waxul alima cooli cooli yawa séeri seexu naa séeri seexu naa jigéenu seex saar jigéenu seex saar noyul ma seex saar soo demee noyul ma seexu naa soo demee noyul ma seexu naa ne ko na ma invité seen TV ma leen Serigne Babacar ne ko na ma invité Sen TV ma woyal leen Serigne Babacar voilà Aïcha jëf ñu daal di ñëw nag fi nga xamante ni mooy Kër Massar ànd fekk sunu mag ji nga xamante ni mooy ñoon mbaay déccee saa su ne ci lépp loo xamante ni lu baax la rek bu sañoon da ciy nekk suba ba ngoon euh, tey nag euh, lii mu def nekk septième édition boo xamante ni ci daara la joo xam ne kii di oustaz Pam Ndiaye moo ko jiitee waaye nag di fi tàggat ay ndaw ñu nekk ay xale yu am pasteef waaye tamit di nafar li nga xamante ni mooy arxuraan te lenn waralu ko rek lu dul sëñ Babacar donc euh, ñu leen di sant bu baax baax waaye di am mbégte tey euh, ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Alima Ndione mu indi fi ay lépp loo xamante ni rek dañ koy jëfandikoo kenn ku ne xam ne ni jamono métti na waaye moom du sonn benn yoon du tàyyi benn yoon saa bu ko mënee rek day ñëw ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa cercle des VIP daal di ñëw nag def lu am solo loolu dama koy bàyyi ndax tu nga ne du teew ñuy nataal mu sànni ci ay kàddu donte sax nag nekkuloon lu ko gënal ndax saa su ne da koy def euh, avec ay caméra yoo xamante ni day nekk derrière waaye nag sama papa danaan lu baax boo koy def du danga koy fësal pour wanewu mais da nga ciy bàyyi ñeneen ñi jël ci exemple donc loolu it dafa nekk lu am solo parce que nit a ngi yoolee milliards ca xamul fu mu koy dugal donc li yoon la dama lay bàyyi yow it nga daal di nuyoo saafonteeg sa xarit yi ndax ñoom dañ laa bëgg déjà alors su ko defee rek nga daal di sànni ay kàddu euh, Thiat maa ngi lay nuyu bu baax di euh, nuyu internet yu Sénégal 7 ak yu Dakar Buzz yi ñuy seetaan ni nga ko waxee léegi wax nga ko di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp waa daara ji yëpp hmm, euh, teg nuyoo bi ci loxo oustaz Pam Ndiaye defe naa Faboy sànq wax na sànq farata bi euh, dañuy tënk rek dañu koy gërëmee bu baax waa cercle des VIP ak ñi ciy def seen doole yëpp ndax alima kese mënul dara benn lam du yëngatu bu ñu koy def sept tey am na ñoo xamante ni ñoo ciy jàpp alima amul amul doole boobu amul kàttan boobu mais ñu bari dañ ci dugal seen loxo te bugguñu sax ku leen tudd bari na ci ñoo xamante ni bu jege see ñoom ñoo lay woo di la laaj kañ la kañ nga jàpp ren ban date ngeen jàpp donc defe naa ne loolu dañ ci képp ku ci sóob sa loxo li ko oustaz Pape Ndiaye waxee sax nga def ci dërëm suñu borom yal na la ko fay ba nga yëg ni fay na la ko loolu la ñuy ñaan yéen ñi nga xamante ni yéenay déplacé wu di àndandoo ak ñun yéen itam suñu borom yokku leen ba ngeen yëg ko ci barke alxuraan ndax li ñuy def alxuraan rek moom moo tax ñu di ko def te def naa ni kuy defar alxuraan suñu borom ngay jëflanteel donc gërëm am kenn nag laa xamante kooku mënuma koo ñàkk a tudd muy euh, ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye moom tam dafee yónnee teranga yu bëree bare bëri bëri bëri ci ay ci ci ceeb ah moom rek laay tudd. mais am na ci ñeneen ñoo xamante ni dugal nañ ci seen loxo ñu baree baree baree bari ñoo xam ne bugguñu sax ku leen tudd même moom buggul woon ma tudd ko. Mm-hmm. mais def naa ne mënul ñàkk ndax euh, euh, yu baax yooyu ni nga ko waxee léegi yenn saa yi fësal ko dafay baax. Mm-hmm. mais képp ku ci sóob sa loxo cercle des VIP ak ñi nga xam ne ñoo jaar ci ñoom jàppale leen ñoom itam. Mm-hmm. suñu borom yokk leen ba ñu yëg ko ñoom góor ñi fi nekk ak jigéen ñi ñii di jàng école ñii nekk métier ñii yor seen liggéeyu bopp suñu borom yokk leen ba ñu yëg ko ñoom itam bu baax ndax dañ ciy sonn xam nga weeru koor bu jotee sànq maa Mansour bi muy yendu saako ceeb maa ngi ko naan maa ko naan massa parce dafa metti ñoom ñëpp loolu lañ ci daj nag ñoom ñëpp ah euh, Fatou Seye Mbeng ci moom ci loxoom laay teg euh, yóbbante cercle des VIP euh, Abdourahmane nekk fi tey mm-hmm. ndax dafa xaw a tawat moom moo tax ñëwul mm-hmm. donc te chaque année moom moo ko doon jiite donc Fatou Seye ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax surtout moom ndax moom da ciy sonn da ciy def yitte ju bare bare bare bare Fatou Seye meeg man yenn saa yi damaa xaw a kii mais yenn saa yi moom damay soññ soññ soññ ba nga mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yal yàlla fay ñëpp ñi ci soob seen loxo te suñu borom may ñu ñu koy def at yu bare bare bari ci barke da baax Malick mi ñu fayee daara te nit euh, mënut ñàkk parce que doomu aadama joo gis muy jël mbir mu baax di ci dox dafa fekk am na lu ko pour euh, pourquoi le choix ci daara ji nga xamante ni moo nekk Kër Massar nekk daara yi sëñ euh, Papa Ndiaye ak li nga xamante ni moo la gën a poussé à ce que nga viser li nga xamante ni moom mooy daara yi ban histoire nga am ak li nga xamante ni moom mooy ndaw ñi. daara ji Oustaz Papa Ndiaye wax na ko sànq bi muy soog a ubbi Abdourahmane moo ñëw wax ma waxu daara ji. wax ma ne ma daara ji mu ngi soog ubbi expliqué ma situation daara ji ne ma nangam laa xalaatoon ñu def ci ma ne ko ay ayca noonu la ma ko waxee ma ne ko incha allah ñun amuñu xëy na million ak milliards yu ñu ci def mais am nañu suñu image. te eh, fi ñuy liggéeyee eh, président Bougane Gueye Dany permettre nañu bu ñu amee soxla yu mel nii ñu ko wax ci rajo bi gratuitement. dañ koy wax ci rajo bi gratuitement dañ koy wax ci télé bi gratuitement. te bu ko neexoon yooyu du ci am. ñoo jiite kër gi tam bu leen neexoon du ci am. bu leen neexoon ñu laaj service commercial. voilà ñun ñu ne la jaaral service commercial. donc dañu koy def chaque année euh, ci euh, ñu utiliser suñu image ak suñu carnet d'adresse. Mm-hmm. donc euh, di ko wax ci daara ji di ko wax ci rajo bi. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne chaque jour su ma wàccee ci rajo bi damay ñëw fekk ci vigile bi ñu tegal ma fa ay yóbbante. ay ceeb. ay doo xam sax seen i borom doo xam sax seen i borom ay yére da wàcc rek vigile bi la li yow yaa ko moom yow lañ ko fi indil nga jël yóbbu dajale ci oto bi daal di yóbbu mais ñëpp ñi nga xamante def nañ seen loxo ñi ñu xam ak euh, leen di sant ñu ngi leen di gërëm te yal na yàlla fay leen ci barke alxuraanul karim ay ca foofu lañ koy nar keppee danoo ci weeru koor te ñoom it amaana euh, xéewal yi leen indil ba bëgg nañ cee def ay ndogoog yoon yu ni mel donc ñu nit dañuy am mbégte la mm. a a yokk kon yéen yëpp yal na leen a yokk defal leen jàmm yow caat ah, sama rakk ji laala sama rakk la moom itam mm-hmm. ah, Amidou ak équipe bi ngeen àndal yëpp donc Dakar Buzz Sénégal 7 ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yaan yàlla defal leen jàmm jërëjëf noonu lañ leen di jox di daje incha ci beneen édition incha yàlla bàyyi ñu ñu fi ñu fekkee te tal ko ak yeneen i xeeti ndogu ci Sénégal set ak Dakar Buzz ma waxalaan la. jeex na kon kontaan nañ ñëpp jërëf jërë jaajëfal nañ aussi ñëpp oustaz ñu ngi koy nuyu ak waa cercle des VIP Alima Ndione yàlla na suñu borom def seen jàmm yàgg ba loo leen bëgg rek yàlla defal leen ko merci beaucoup et bonne soirée.